bokk ci ñi ñu yàqule fii mën nga ñu wax sa tur ak sa sant ak lii nga yàqule fii. Euh, man Mamadou Bari laa tudd ñu may wax Maadou quoi euh, waaw boo lii li ma fi yàqule euh, ñetti nag la quoi mooy nag yi laq yi ngeen di gis nii quoi benn bi nag gisuma ko quoi xaw ma dafa réer xaw ma nu mu demee daal samedi passé lañ demoon jënd ci ko tubaatul ma ak sama gars yi quoi parce que dañu am benn GIE bu ndaw bu ne fii benn tali dañuy def élevage ak lépp et tout. xam nga loolu kese la quoi bon ñëw naa fi tey sax ba man maa leen may ñu lekk euh, toog naa ni di seetaan match Europa League bi nii jékki-jékki ñu woo ma téléphone baa ngi tàq quoi gars yi génnee xar nga dem xool ba xam mais man automatiquement moom mu accès ci buntu bi rek bi ma accès fi muy tàqee quoi ci laa xam ne foofu place su nag la quoi ci laa ne ah amatuma joon yaakaar quoi franchement jotuma sax àgg foofu ma ne léegi naa jéem a xool fi xar yi nekk rek mu mu leen rawale xar yi ma moom ba mu jegsee ci buntu bi rek laa ne góobari dinaa fa la demee voilà mais pourquoi nag yi mënoon daw génn dem. non nag yi daw génn grand nag dañ leen di tax xam nagu élevage da nga koy yeew mu taxaw di ko xont di ko defar looloo quoi waaw noonu la demee te ay nag itam instant yi amuñ doole ay nag samedi lañ fi ñëw amuñ une semaine nee naa la samedi lañ jógee Touba oh. Toul maag sama gars yi quoi jënd ci ko. ñett nag ñett la quoi mais ñaar moom ngeen gis mu laq nii benn moom gisuñu ko waaw. yi bi daal ah. à peu près ma xool benn bi ñu ngi ko jëndee booy bi tëdd nii ñu ngi ko jëndee cent soixante dix mille beneen bi ñu ko jëndee cent cinquante cinq mille beneen bi ñu ko jëndee cent quatre vingt mille mooy bi rëcc bi ñu gisul quoi transport beeg yooyu moom wu ma ko ci quoi parce que ñu ngi fay oto bi presque. non non franchement man ma wax ne la lakk bi nii la demee parce que nee naa la ma toog kër gi di seetaan télé sangaguma woon sax maa ngi seetaan machine yi jékki-jékki ñu woo ma téléphone ne ma Castors paaka ba dafa am lu fa lakk gars yi génnee xar yi su ngeen dem xool ndax seen xar yi bokku ma ne la man automatiquement man bi ma yegsee ci bunt bi xool fi fi muy laqee man xam naa fa la samay nag nekk man aw ma ci ma ne kon jéem ma jéem a ba ma ñëwee tamit bon fekk naa ay nit ñu dimbali ma ñu génnee xar yi quoi xar moom macha allah benn demu ci quoi mais nag yi moom ñu jënd samedi bii passé tuubaatul nag yëpp benn bi moom dafa rëcc noonu la demee quoi. mais am na ñuy wax ni aussi que xar yeeg nag yi am na ñu ci ñoo xam ne bokkuñu si mais dañ doon jël xaru jàmbur yi. non ay sàcc ak yooyu. est-ce que yow mën nga dëggal loolu. non man mënu ma dëggal loolu. waaw franchement mënu ma dëggal loolu parce que gisuma ko du ma wax lu ma wóorul man bi ma ñëwee di génnee samay xar bu doon man kese la du ma leen génnee am na ñu ma dimbali sax jàppale ma ci te biñ leen génnee tamit ñi ko doon xool man xaw ma leen te biñ demee ba affaire yi dal tuuti ñëw naa fekk fa xar yëpp kon man mënu ma dëggal loolu franchement voilà noonu la demee non man Mamadou Bari laa tudd ñu may wax Maadou. ok noonu la demee. yow ñaata at nga bi bon à peu près ay trois ans affaire yi demee noonu